La la ñun ñëpp unanimité lañ koy waxeem professeur ñun ñëpp unanimité ànd nañu yëkkatiwaat loxo ba ñu jaayante woon ak Zeyna jaayante kook jigéen ju tedd ju sell ji di maam Fatou Mbeng di la wax ne boo ne wow na ñu ne koŋ boo ne ñuul na ñu ne kukk boo ne tooy na ñu ne xepp ndax yaa ko liggéey yaa ko wone yaa ko jëf yaa ko dox yaa ko wax ñépp a ngi àndandoo di jaayanteeg yow dëgg la ci yéen wala dëggul ci yéen yëkkati seen loxo ku dëgg ci ku dëggu ci moom kon unanimité ànd nañu jaayantewaat ak yow di la wax ne duñu ñu reculer dellu ginnaaw insha allahu taala feek maam la feek maam faatu la feek maam faatu la ah waaw moo tax may yox feek maam faatu la xam nga li tax ñuy wax baat boobu noonu la Zeynab moo ne bu dul maam faatu ma tas soppe yi laataa muy faatu am nay seede alfa mu ngi noonu keroog wax na ko moom itamit ca jataay bi lan moo ko mayee nag jikkoom la wala nag mu dem ba mu neex la nga seet ku la koo doyloo nga ne doy na ma ñu seet ne doy na la ñu doyloo ko waaye feek mi lay yaa yaa yaa ngi fi mu doy la mbooloo mi yëpp ñu ngi àndante di jaayanteeg moom loolu yàlla na sax ba yowmal xiyaam insha allahu taala subhaana rabbika rabbil izzati amma yasifuun salaamun kuulaatun man ma xeex jaaral ma dem ba jeex bëgguma ku lay xeex